L'air du TV, la lumière du Coran et de la Sunna. Abonnez-vous. إذا شئت سهلا اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واحفظنا بركنك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا wala tuhlik na wa anta raja a dellusiwaat nañ ci tafsir bi biiznillah xam ngeen ni ñoo ngi nekkoon ci suuratu shuara taxawaloon ci boppu aaya 159 waaye tey ñu war a tàmbalee ci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 رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمترنا عليهم مطرًا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثر مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم الحمد لله رب العالمين نوغي تخولي ون comme ni mako waxé légui léegi ci suuratu shuara waye wara tambalé tay ci aaya 159 muy ñew di ñu netali nitu luut ni ñu weddee yonent yëpp ndax wax laa ni yonent yëpp ñoo bokk benn mission bu ñuy dox te mooy jaamu yàlla te bàyyi lu bon luut nag ginnaaw yonent yàlla saalix ak nitam yàlla daf ci softal yonent yàlla luuta saalix aw nitam dañu doon bokkaale di jaamu xërëm di jaamu jinne yi gëm ay caaxaan saalix ñëw fa di leen woo waaye ñu ne ko bu fekkee yàlla la yónni fexeel ba montagne wi wasin gëléem ñu koy gis muy loo xam ni mu xaal la illa an taatiyal mujiza mënul nekk allahuma lu dul mujiza ñëw bu ñu waxee mujiza mooy luy lottal xel ndax lañ ca jublu mooy bëgg a arrêté yonent yàlla saalix ci woo gi mu leen di woo saalix ñaan yàlla yoor yoor dëkk bi ñépp taxaw gis montagne wi xar ngëleem su ndaw génn ca mooy luy doog juddu waaye ba ñu ko gisee mu waroon leen yéem ndax ñoo ko laaj waaye ñu na ah lii day njabar la rekk ak seeni maam ya loolu nag mooy melokaanu ku njub nekkul ci moom noonu la ñu def ba mujj rey gëléem ga naqatallaahi wa suqyaaha jàpp nañ gëléem ga rey ko yàlla alak leen ginnaaw silsila bokkaale bii nga xam ni yonent yépp ci la ñëw luut ci loolu lay woote di jubbanti aw nitam waaye dafa am beneen phénomène bu judd ci kanamu luut te nit ñi kenn xamu ko musuñ koo dund ci lu jiitu ñii ñoo ko njëkk a def mooy lan mooy ak ngóor jigéen luut nee na leen maa sabaqakum biha bi ahadin min al kenn njëkku leen ci kon yéen yéenay taaw ngóor jigéen ku ko defati da ngeen am pourcentage moo tax borom bi ne kazabat qawmu luutinil mursalin waxoon naa la ko ci bind yi paase soo weddee benn yonent weddi nga ñépp moo tax borom bi ne weddi na ñu ne ko ñan ñoo weddi mu ne qawmu luut weddi nañu aadam ba ci saalix yàlla di ñu wax la tax ñu weddi mu ne is qaala lahum ba nga xamee ni wax na ñeel leen axuuhum seen mbokk ma luut ne leen alaa tattaquun moo tee a ragal yàlla te bàyyi li ngeen def ndax inni man kat lakum ñeel leen rasulun ab yonent laa aminun bu jub luut doom la ci yonent yàlla ibrahim ibrahim juru ko ci biiram waaye moo ko yar yar ko ba ñaan yàlla yónni ko ndax boobu liggéeyam bari na te mu ngi commencé jëm mag mu dégg ni am na dëkk bu nekk ca wetu Palestine ñu naan ko sa Sadum dëkk boobu mbon nga fa nekk jéggi na dayo yonent yàlla Ibrahim ñaan borom bi ne ko dama bëgg sama njaboot gi nga yónni ko kon luut bi mu ñëwee wax na leen li bépp yonent di wax te mooy ragal leen yàlla wax na li bépp daa yi war a wax aw société mooy ragal leen yàlla te teg ko ci dëgg kon nag ne leen fattaqullaha waay waay ragal leen yàlla wa atiiun te ngeen topp ma ndax kat mbirum ragal yàlla maa leen ko gën a xam ndax man la yàlla yónni kon su ngeen bëggee seen ak ragal yàlla dëgër mbaax da ngeen may topp ci li ma leen di sant waaye ngeen bàyyi li nga ma leen di tere kon fattaqullaha wa atiiun ragal leen yàlla waaye ngeen topp ma loolu it moom la yonent bi wax borom bi nañu nañu topp muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne leen woo bi ma leen di woo nii kenn ci yéen fayuma gëléem kenn neexalewuma xaalis kenn jënduma maanaam daal mooy ganaaru kenn ci yéen nenuma yaakaaruma seen añ yaakaaruma seen reer dama ñëw pour wax leen ngeen jub loolu rekk a ma yëkkati wa ma asalukum laaju leen alayhi ci waar mii ma leen di waaree min ajrin benn fay doomu aadama dafa tàmm boo ko ne yàlla nee na mu tàmbalee làmb poos jamono bi ñuy daawa ci kaar yeeg oto yeeg marché yi nga xam ni léeg-léeg dañuy am jot rek nga jël sa benn cent cinquante jële vingt et un Thierno Ndiaye daa di jëm Dantec foofu lañ daan dem dara nekkul woon suñu jubluwaay bu ñu duggee rek. Alhamdulillah, rabbil alamin commencé waar nit ñi di leen fàttali soo tàmbalee di wax ci feebaru société bi ak nan la ñu war mel nga dégg nit ñi naan est ñii di jël par juróom ñii par ñaar fukk di yëkkati di la jox gis nga liñ lay jox bis boo ko xasee ba jël dootuñ la déglu dañoo jàpp ni yelwaankat nga buy ut fu mu jaar léeg-léeg nit yëkkati jox la nga taxaw ne ko déet man yelwaanu ma dañoo bokk diina ji may waxtaan ak yéen su ko defee loolu da koy yéem noonu la ñuy nekkee ci oto yi def nañ koo def ba bu ma daan entraîné di jaraaf yàlla xam na ko bu ma doon dem di entraîné di école jaraaf ma duggee ba Medina damay daaw ma wàcc dox daw dem terrain football tourné jëlaat oto aca nekkaat ci <laughs> mais yenn gars yi di Mawla mu oustaz footballeur parce que dañ ko tàmmoon ba mu nekk ci suñu deret ñuy ñaan yàlla mu saxal loolu defal ko mboolem jullit amul ci kaw suuf lu gën a rëy wax ba nit jub donte kenn la dara gënu koo rëy kon wa ma asalukum alayhi min ajr fayikuuma leen de ndax xam naa ni in ajriya illa ala allah fay bi ma bëgg fay bi mat ma soxla ko nekkul illa ala rabbil alamin yàlla rek moo ñu mën a fay waaye yéen mënu leen ñoo fay loolu dafa war a nekk jubluwaay kuy woote te yàlla tax bu ci jublu ut tur bu ci jublu ut bës bu ci jublu ñu dégg la ndax yàlla dara réeru ko loo def te jëmmam ji tax xam na ko loo def ngir leneen mu seetaan laak loola kon yàlla kenn mënu kaa nax gis nga xissa yonent yàlla luut ñëw na ci suuratul araf waaye ñëw ci suuratu huud kon loolu la muy nettali def ñu bëgg a nettali Sadum ak la fa nekkoon ak na mu meloon yonent yàlla luut suuf soosu mu ñëw muy Sadum taxul mu sori Màkka de déedéet wa maa qawmu luutin minkum bi sori wut waaye waa Sadum ñoo yées ci nit ñi ginnaaw bokkaalekatu yàlla bokkaalekatu yàlla moom dara dara dara mel bu mag waaw war nañ caa xeex waaye boroom day amee taab bu newi lool bu ne cas bënn mu bëgg a dee muy lijjanti piccu jàmbur xam nga dégg ngeen olof yooyu xaw <laughs> ku amee taab bu wunni ba bëri dëtt xooloo sa taab nga naan diw sa tànk bi daa am picc de doo ko jéem a faj te yow yaa ngi ame taab léeg nga dégg ay ustaas yuy kaas ci yenn bakkaar yu nit ñiy def bàyyi sunu réew nga xam ni bokkaale moo fi lëmbaaje wala sax nga bokk ak ñoo xam ne dañu koy def te nga xam leen waaye doo am courage ñeme koo wax maanaam yow sa kër mbon dafay tasaaroo ngay lijjanti kër jàmbur te la la war mooy wanzir ashiratakal aqrabin kon la jiitu ca la woote ku dul ahlu sunna doo ko woote tawhid ah non tawhid ahlu sunna yi rek ñoo ko fiy woote ñoom rek moo taxit ñu ŋaw leen comme bukki bu dugg ci biir yi xaj dañuy mbow rek mbow mbow mbow mbow rek rek la ñuy nekkee day étrange ci ñoom di nga gis sa ku taxaw naan yàlla ne yonent bi ne te ngan di bokkaalekat la moom ci boppam dafa nekk dans le coma ne day faj ñi seen bopp di metti kon gis nga tawhid moo jiitu certes ngóor jigéen bon na kenn di ko cautionné <laughs> waaye nag bokkaale du moroomam de bokkaale ay nijaayam waaw bokkaale moo yées ci bàkkaar xam nga kii def góor jigéen mën nañ koo rey ndax mooy atteem waaye kii def bokkaale na yëg ni mooy yées kii def ngóor jigéen kii def bokkaale moo yées def bokkaale mënul dem àjjana te góor jigéen mën naa nekk góor jigéen ñu àtte ko rey ko mu dee bàkkaar ba deñ yàlla àtte ko yóbbu ko àjjana waaye bokkaalekat bu tuubul ba dee mënul dem àjjana la in ashrakta la yaxbatanna xataa yonent yi bu ñu bokkaalee yàqule kon il faut ñuy teg mbir yi seen place góor jigéen bon na waaye bokkaalee ko yées naan sàngara ak jaay sàngara bon na waaye bokkaalee seen baay kon bul toog ci fu ñuy bokkaalee di fa mooy yàlla nga taxaw naan dañuy naan sàngara dañuy jaay sàngara yow da war a faju ji da ngaa feebar kon mbokk nit ñooñu nga xam ne ñooy sa doom di bàyyi jigéen di ñëw ci ay góor bàkkaar wu mag lañu def mbon gu jéggi dayo la ñu def seeni sët nag mbon rek lañu mën a def lu ñaaw lañuy def mooy sëy ak góor ni ñoom loolu na mu ñaawee mu yem ci affaire bi da koo jëlee kaw ndax xamut ko mu ni leen ataatuuna zukraan waaw yéen da di sëy ak góor laa ilaha illallah loolu de mooy tool boo bëggut mu meññ toolu dàkk boo ca jiwee du sax dàkk nag am nañu ko xam mooy suuf bu wow koŋ loo fa bul yaakaar góob mooy sa moroomu góor nga séq ak moom ëmb duma ma sa am de waaw kon ñi yàlla programmé mooy jigéen ñi soo teggee loolu mbon gu jéggi dayoo la xaalis nag dem na ba jamono ji ñàkk ngor ñàkk ngëm ñàkk tawhid tax nit ñi di dugg ci mbiram ngóor jigéen moo tax bi leen luut ne ataatuuna zukraana min al aalamin waaw yéen da ngeen di sëy ak ay góor te jigéen ñi ne fi waaye la gën a yéeme mooy jigéen ña fa nekk ñooy utal góor ñi ay góor mbon bu yaatoo ñu bari mën caa sàqi te moom luut jabaram bokk na ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy utal gaa yi ataatuuna zukraana min al alamin la ilaha illallah léeg-léeg nga gis góor xool ko xool sa yaram day daw da nga naan waa lii moom lan la lii moom lan la naka la góor mën a choisir mbon gu toll ni ne man góor jigéen la bàyyi jigéen ñi ñëw ci góor ñi yàlla ne comme ñii bugguñu avancement bugguñu yokk bugguñu dëkk bu yokk naa leen ko yombalal ne malaaka yi nañ ñi déqit suuf si dëpp ko mbir mi jeex benn yoon moo tax mbugal boobu lañu tollool moom lañu ñu tel leen teg luut ne leen ataatuuna zukraana min al alamin moo ndax dangeen di sëy ak góor ñi wu na ngeen bàyyi maa xalaqa lakum la bindal na leen ko seen borom min azwaajikum ci seeni jabar ngeen bàyyi seeni jabar moo tax am na bàkkaar yoo xam ni ku koy def amoo xalaat amoo xel bahima moo tane bahima moo la tane doomu aadama gis nga mbir yi bu ci nekk kenn mënu caa defal kenn lenn walla mu dimbale ko fukki mbir yàlla dalaa woo ne la loo ci def sa bopp nga ko defal defaloo ko kenn de bi ci jiitu borom bi ne fa man sora fa li nafsi wallahi ku yeewu xool sa bopp xool fa yàlla jaar ak yow nga ni comeet xam ni jaamu yàlla moo ma jig defaloo ko kenn sa bopp nga ko defal fajar yi jóg nga jóg di julli ji jaamu yàlla jot nga di ko def defaloo ko ma sàmba defaloo ko ma ba bul nangu ku dox sa digganteek jaamu yàlla def lu baax kenn du ko def ngir kenn koo ko defal sa bopp lay tekki man amila saalihan fali nafsi képp ku def lu baax buñ la santee dañ lay encouragé waaye sa bopp nga ko defal moo tax lu waay def boppam kon yow ndaw lii bul jël sa àdduna di ko jëndee ngóor jigéen bu ko jëndee musique bu ko jëndee fecc li gën a ñàkk jom ci kaw suuf ci góor dañoo ñëw ma ne man may danseuru diw benn waaye dañuy nuyu ñu ma koy présenté naa ma kii mooy danseur diw man man maa ngi koy xool yéemu mais moom mi ngi ko def ngand ko ma jox la oustaz adduna bi mi mi ngi yàqu adduna bi te gis nga góor gi xalaatul ëllëg doom xalaatul jabar xalaatul mage ñëw xalaatul mu dem ba mënatul fecc moom kuy fecc feccal boo amee cinquante ans taxaw de tëb yi dootoo ko mën de dootoo ko mën de boo demee ba àgg benn âge bi nag àgg fenn fi nag ndeysaan affaire yi commencé génn sët di ko xool a ah, suñu maam a daan def lii ah loolu te nag gi nga saar yooyu ñooy nag gaa ba ba ñëw ci jàkka yi xatal ko nag may noddu bëgg na ci jàkka ji nodd boo yëgoon ni fecckat nga commencé <laughs> eh, pas danseur ah, ah, ah loolu nga jëloon am métier loolu du métier góor di létt te loolu li gën a grave ñag yi dugal nañ ko ci ñun ba ñun léegi day gis ñu koy def métier boo génnee jubal nii balaa ngaa sori gis ko man damay taxaw di di xool mais gars yi téye bopp jigéen ñi jigéen ñi nee na ñoo ñëw dàq létt subhanallah góor di létt ah waay waay musiba am na façon yii yëpp nag yoon la bu jëm ci ngóor jigéen ku bañul fecc bañoo liggéey liggéey bi jigéen ji liggéey sori woo yoon boobu xaw ma ana góor ak létt waaye bi yées <laughs> góor gi forote ay jigéen boobu moom dama koo dégg ma ne ma ne loolu moom Macky la war na cee waxam loolu moom warul jëm kaw waaw warul jëm kaw jigéen ni watt sa kanam nga di ko forote wala góor taxaw naan man man tatouage mooy sama métier quoi damay tatouer ay jigéen mais dama leen di xool mais duma ma mais dangaa da dee ba pare ku dee ba pare dara mënulaa laa déranger yow nga xool partie intime jigéen di ko tatouer yow nga ni am musulman nga góoru jullit nga mais nit nekkatu fi billaahi nit nekkatu fi nit ku wér nit ku ñor nit kuy xalaat nekkatul fii nga ñeme ko nag moo tax borom bi ne man amila saalihan fali nafsi lu mu ca teg wa man asaa ay wa man asaa fa alayha loo def ci lu bonit yaa koy góob borom bi ne man shakara fa innama yashkuru li ku sant yàlla defaloo ko kenn sa bopp nga ko defal kenn du toog ña la santal ma yàlla loolu nga dégg naan Eh, sant la leen diw yàlla luy sant la leen ma yàlla santal yàlla boo ko bëggee keneen ko ne sant yàlla li yàlla defal mais sant la leen ma yàlla loolu moom ay baat la yoo xamante ne da koy dégg Sénégal da ngay ree ba sonn waaye yow yaay sant yàlla ngir la mu la defal ci nit nag mënta bokkaale ba pare day sant yàlla waaw loolu moom moom moom mënu nekk ku baax sa bopp nga baaxal wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi wallaahi ku sell yal na leen ko yàlla def def ñu ko sell mooy yëg ci sa xol ak bëgg yàlla bëgg yàlla di la ñunub di la kontaanloo nit dina toll foo xam ne bu gisee lu neexut yàlla te munu ci dara rangooñam day tuuru muntaxaa mbaax la yàlla nañ ko yàlla may rangooñ boobu yàlla du ko lakk mukk gis lu yërëmtalu munoo ci dara nga di ko jooy gis lu neexul yàlla mënoo ci dara nga di ko jooy loolu am nañu yàlla may dayo boobu mooy wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi lu tax qad aflaha man zakkaha sa bakkan da ko war a sellal ba dara du la yëkkati lu dul lu neex yàlla nit bu àggee foofu dootul biddanti wala boog bu biddantee tey balaa mu koo dalaat ndax toujours am na rendez-vous yu mu séq ak boroomam fasul yéene dara di ko ko xañ kon man tazakka fa innama yatazakka li nafsi ku jihaad ak sa bakkan ku jihaad ak sa jikko ku jihaad ak sa xol kooku defaloo ko kenn moo tax borom bi ne wa man jaahada fa innama yujahidu li nafsi mbokk bakkan dañu koy teeral xeexal ak moom en tant que jeune xeexal ak sa bakkan bul ni damay masturbé wu mënuma koo bàyyi bul ni damay njaaloo mënuma koo bàyyi bul ni damay fen mënuma koo bàyyi bul ni damay bokkaale mun lu ne mën nga koo bàyyi xam nga li nga mënta bàgg bàyyi tabi'a bi yàlla mooy xiif wala lekk mar wala naan mënoo ko bàyyi ndax tabi'a la ci yow mais damay mascribé wu mais mënuma ko bàyyi oustaz su ma ko bàyyee quelque temps del ci bakkan la kii ngay toj ba mu mokk da ngay duma sa noon da ngay duma sa bakkan bis boo dumaa sa bakkan noon bu jàkkaarloog yow du la ñeme waaye bis bu demee ba sa bakkan nga gën bëgg say noon àdduna say taxaw sa kanam ndax ñoo nit lu mu moom ko caa xeex moo il faut ñu ak sunuy bakkan te xam ni sunna yombut yombut de ku ko yàlla defal defal na la tawfiq yàlla nañ ci yàlla dundal rey ñu ci ku jub sa bopp nga jugoon man ihtada fa innama yahtadi li nafsi moo tax di ñaan yàlla allahumma ahdina fi man hadayt yàlla ña nga jubal yàlla na nga ñu ci boole wa aafina fi man aafayt ña ngay jàmmal yàlla nga ñu ci boole wa tawalla naa fi man tawallayt ña ngay seen bir yàlla nga ñu ci boole hidaya tawfiq bu la ko yàlla defale mbokk santal yàlla dara mënatul rëy sa kanam yàlla nañu yàlla may am gis nga nayit boko defé defé ko ken sa bop nga ko def bo naye loolu mbokk bokk na ci o man yabxal fa innama yabxal an nafsi julit du nay jikko la bu bu sof jikko yi ku taxit la nay ànd ak say moroom ñu soxla nga yëkkati li ci sa poos joxe kenn ku ne denc foog ni yaay waaja doo waaja de moom mii mooy waaja da ngeen koo jàppee dof mooy nit ndax sayidul qawm xaadimuhum waaw nit da ngay jéem a am samaaxa am tabe gis nga li nga denc feeg joxe woo ko da leneen dootul ñëw kon fexeel li nga moom sa njaboot bokk kook yow say dëkkër bokk kook yow say mbokk bokk kook yow ku dellu ginnaaw bayi diine nekkoon naa ci dellu ginnaaw léegi la nga dégg ku ne la man de man nekkoon naa sunna mais léegi ndeysaan bakkan la de xamul tax nekkoon nga ahlu sunna mais rayagoo woon sa bakkan iblis otal la borom bi ne faman nakasa fa innama yankusu ala nafsi ku arrière sa bopp nga arrièreal ndax kat bu dee jotee <laughs> gars arrière de kenn du arrière di yóbbu néew avancé rek bu da ngaa arrièreoon defoo kenn sa bopp nga ko def bàkkaar mbokk moytu ko fàggu bàkkaar nag lu yées la wa man yaksib isman fa innama yaksibuhu ala nafsi léeg-léeg am bàkkaar yoo xam ne yaa ko fàggu de bàkkaar mooy sa bakkan sa deuxième noon mooy sa bët sa troisième noon mooy sa nopp sa quatrième noon mooy sa biir sa cinquième noon moo ci yées mooy say góor góorgóorlul mbokk ba xeex boo xeexee rek incha allah di nga mucc moo tax luut ne leen maa xalaqa lakum rabbukum min azwaajikum yéen ngi nii bàyyi li leen seen borom bindal ci ay jigéen naka la góor di bàyyee jigéen di jël góor ni moom te tey li gën a doy tukki bitim réew mi ngay dégg ñu ci bari di muccee ngir dem nekk góor jigéen walla muccee ngir dem jaay sa diine mbokk loolu dara dara dara jaru ko ci kaw suuf bi leen luut waxee loolu ne leen bal antum qawmun aaduun yéen day ay nit ngeen ñoo xam ni jéggi ngeen dayo de jéggi ngeen frontière mooy def ngeen lu leen seen borom tere lii borom bi tere wa man yataadda hudud allahi faqad zalama nafsa ku jéggi frontière yàlla yi tooñoo ku dul sa bopp gaa yi tontu luut xaalu ñu ne ko la in lam tantahi soo daytaluwul noppi tée sa làmmiñ wu rëy wii yaa luut la takunan na da bokk min al muxrajin ci ñu ñuy exilé génn leen yow daal bàkkaaroo sa yoon newu ci loolu mooy maandul ci affaire yi quoi sa yoon nekku ci maandul maandul affaire yi sa yoon nekku ci quoi gis nga baatu maandu allahu akbar sénégalais yi ba léegi dégguñ ko ndeysaan dafa am benn jeune léegi suma xarit la ndeysaan dañoo daje ci prison bi premier jour bi may taxaw tribunal ñoom ñoo toppoon ci man man buñ ma defaloon jugement su ma paree ñoom la ñuy woo mais bi ñu njëkkee woo ñu ñëw taxaw ñu ne ñu delluwaat leen ndax boobu juge bi xool na dossier bi ñu ne nañu delluwaat après nañ ma woo am na ñoo xam ni maa leen jiitu woon mais comme ñoom yaakaaroon nañ ni bii bu ñu ko yëkkatee rek dara mën na am booy bi yàkkamti na ku ko àtte bi ñu ma woowaatee ma ñëw tàmbale coow li bari ñu renvoyé ko ñu duggaat ci kaa bi ma ne oustaz lii yëpp yaa ñu ko teg <laughs> oustaz oustaz oustaz lor nga ñu quoi. ma toog di ko xool benn waañ ko mais oustaz lan lañ doon mën non mais oustaz dossier bi dafa ngand waruñ ko woon laal ma ne waaye léegi man maa ko def wala ñoom ñoo ko def mu ne non mais oustaz xam nga yow yow yow dama toog ba càgg ma ne ndeke man mission laa ñëwoon wallahi danga nga fay fekk ay ndaw yoo xamante ni ah yàlla dimbale gis nga daawa bi jàpp leen ci mooy dëgg de lii sunna ku jëlul sunna sonn kenn amul garabam kaso ku fa nekk loo dëng dëng dëng dëng dëng sa xel day ñëw wax faak yow day yomb wax faak yow day yomb gars yi ñaan nañ ma fa ne ma naa fa jiite man leen jamais oustaz dimbale ñu nga jiite juma ndeysaan ñaan man leen noo ñi doon jiite nañ jiite noo man leen man du ma wax lu ñu enregistré wul te fii kenn du fi enregistré waa ji yëngal bopp mais oustaz mën nga ñu may rek benn kii ma ne ko su ma fi waxaatee musiba ñu yokkal ma pen nag <laughs> waa ji xaw ma ne oustaz nag da nga bëri problème ma ne ko man du ma wax lu ñu enregistré wut man lu may wax dañ koy enregistré waa man naa ma ne ko lu may wax su ngeen bëggee ñu enregistré ma ba man leen na gis nga biir katu bi am na ñu fi nekk ña jiite ñoo xamante ne ndeysaan lu bari dara xamuñu ko ay ustaas yu mag ñoo nga fa mais kenn du nangoo jiite moo tax yal nañu yàlla defal tawfiq yal nañu yàlla defal tawfiq damay dem bay waaj a génn ndeysaan ay jeune di jooy wallahi ne ma ustaas kenn du génn kaso ñu naan la toogal mais bu doon suñu sagoo sax nga toog fekk ñun sax yaa ngi ñuy dimbalee yàlla nañu yàlla defal tawfiq moo tax gis nga man absara fa innama yafsiru ala nafsi gis nga boo yeewoo yeewuloo kenn lu dul sa bopp moo tax bi ñu nee luut la in lam tantahi yaa luut la takunanna min al muxrajin da nga bokk ci ñu muy génne bokk ci ñuy génn dañ lay génn dëkk bi exilé la qaala luut na leen inni man mii minal qaaliin way bañ laa jëf ju bon ji ngeen defee mooy li amalikum seen jëf ju bon ji ay góor di sëy góor ku leen bañ laa ku bañ li ngeen di def la luut waxul ne ñoom la bañ de mais jëf ji wa inni li amalikum nit <coughs> buy def bàkkaar bàkkaar bi muy def ngay bañ waaye du jëmmam moom la ñuy bañ ndax moom mbindeef la mën na juum moo tax mu ne qaala inni li amalikum min alqaalin ba pare ñaan rabbi ne ay sama borom najjini maa ngi ñaan nga musal ma wa ahli ak sama njaboot mimma yaamaluun ci lii ñuy jëfee te muy jëf di ñaaw borom bi ne fa najjaynaahu ñu musal ko wa ahlahu ak njabootam ña jur ña baax ak ña ko gëm ca daawa ba ñoom ñooy wa ahlahu ahlu rajul buñ ko waxee mooy njabootu diw sa njaboot nag toujours am na ñoo jur am na ñu ñu la jural ñi nga jur ci sa biir mooy abnaa sulb sa ndigg lañ bokk mais am na ñu la jural say jarbaat say doomi mag say doom say dëkkandoo say doomi misaal ñoo xamante ni yow yaa leen yilif kon bu la yàlla defee nga jiite dara walla am ñu la topp ci dara fexeel yaatu ba ñépp xaj ci moo tax kilifa bu nekk danga am responsabilité ci lii di xew ci réew mi nga war a wax bu dul dara ñi ànd ak yow te bëgg la war nañ la caa dégg motax borom bi ne fa najjee wa ahla xoola yontu yàlla nuh bi domam labé lu mu wax yàlla rabbi inna bni min ahli yàlla sama dom ji ci man la bok yàlla nako ko laysa min ahlik bokul ci sa njaboot innahu amalun ghayru salih jëfkat lu bon la kon bokul ci sa njabot borom bi ne fa najjaynaahu musal nañu luta wa ahlahu ak njabootam ajmain mboole seen illaa ajuzan mu ne xanaa mbata seen na su màggat màggat soosu jabaru luut la fil xaabirin bokk na ci way dëpp ya ba ñuy dëpp suuf sa dana bokkute ña nga xamante ni dana alku borom bi ne summa gannaaw ga nag dammar naa ñu daal di jàggati mokkal al axarina ñeneen ñi mooy suuf si ba ñu ko yëkkatee dañu leen a dëpp borom bi ne wa amtar na ñu daldi tawale tawal alayhim ci ñoom mataran taw mu bon xam nga mooy taw lan ay xeer ay xeer la borom bi taw ginnaaw bi ñu leen dëppee tawal seen kaw xijaara muy ay xeer borom bi ne fasaa bon na matarul mundarin tawub ñañu xuppoon di leen tiital borom bi ne inna fi dalik aji nekk la ci loole nga xam ni niti luut mel nañ ko ak luut la mu leen doon daawa la aayatan ay kemaan waaye wa ma kaana nekkul aksarum lu ëpp ci ñoom mu'miniin di gëm gis ne ki gëmul woo ko yombul waaye nag na nga xam ne wa inna rabbak naka sa borom la huwa moom al azizu rahim mooy aji tedd waaye mooy aji yërëm yàlla mooy borom boo xam ni bis bu nekk nga di ko tooñ waaye bis bu nekk mu naan la jege sil tuubal dina la woo ci tuub waxtu wu ne ba guddi da koy def moom borom bi su njël di tàmbale ñetteelu xaaju guddi gi quatre heures du matin jëm six borom bi day wàccal boppam du yónni kenn allahu akbar ndaw borom yërmande ba ci asamaanu benneel ni hal min taibin fa atubu lah ñii ñu ngay nelaw ñii ñu ngay liggéey ñii ñu nga ca dansin ya ñii ñu nga toog jéggalu yàlla nañ ci yàlla boole am na ñoo xam ni wa bil asxaari hum yastaghfiruun ñoo xam ni seen lépp bu quatre jotee ñu nga toog di tuub di dellu ci seen borom wa bil asxaari hum yastagfiruun mbokk fexeel nga bokk ci ñooñu borom bi ne hal min taibin fa atuubu la moo ndax am na góor gu def bàkkaar di tuub kaay ubbi naa bunti asamaan kaay ma jéggal la lan moo jaadu nga jóg ci lal bi ne ko yàlla jéggal هل من mustaghfirin fa aghfiru la ndax am na kuy dellu ginnaaw xam nga olof baatu tuub rek la am mais taib ak mustaq bokkul ndax am na kuy jéggalu ci rëcc rëcc yi mu yëgut taib mooy kiy jéggalu ci bàkkaar yu mag yi mu def bu la seytaane mën toog ci sa nopp naa la jaru ko de yow xës nga bare nit moom jaratul ngay tuub parce que aaya bi nee na man qatala nafsan mutaammidan fa jazaau jahannam nga dajeeg ustaas bu jàngul xamul aaya naa la ga <laughs> gaan jaru ngay toog yow yàlla da nga rey nit aaya bi nee ñu bëri ci ñu jàngul ñooy rey nit ñi kii def bàkkaar bu leen ko nëq ci bàkkaar bi benn waay ñëw na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam takkusaan di waaj jot mu ñëw ne ko yonant bi mu ne naa mu ne dama fëkk benn jànq def naa moom li góor di def ak jigéen waaye jotuma àgg ca moom nag jotuma àgg ca moom waaye lépp li góor di def ak jigéen def naa kook moom tiit naa nag ma ñëw nga bëggal ma nga delloo ma sama boroom lu war ci man nga def ko yonent baa ngi toog mel ni ku ko déggul waa ji waxaat Umar ibnul Xattaab ne ko lan moo tax ngay weer sa bopp te yàlla suturaal la yàlla suturaal la lu lu kenn yëgul yow rek yaa ko xam lu tax nga indi ko nit dina def bàkkaar boo xam ni moog yàlla rek la mais jarul nga di ko nettali tiital tuubal yonent bi tontuwul waa ji waa ji toog toog wax toog wax ba jàgg xam naa mu xaw a découragé foog ni yonent bi bàkkaar bu réy bi mu def moo tax yonent bi dummóoyu ko bàyyi bañ julli tàkkusaan ba pare bi ne ana waa ji ñu ne ah kooku de dem na naa mi ngi dem ak bu naqari ndeysaan ñëw am yaakaar ñëw ci yonent bi wax amul benn réponse su gaawantoo rek ndeysaan day tiit seetaan na ko <laughs> alors mi ngi nii <laughs> nooy nga demal lu mën ci yow yonent bi ne ana waa ji ñu ne ko dem na dem na mune dem len ne ko sama borom wacce na aw aya ne innal hasanat yudhibna sayiat ذلك ذكرى للذاكرين جيف يو باخي دانيي فوت يو نياو يو بوني با مو سيت توك سي كوم موي مثال بو ماغ ني دون جوخه danga ñëw am kii di napp fee ñee jonkan fee ci cabinet demal ci géej gi ñii dañuy cabinet fii ñuy sotti fii ay ay ay ay oto manque douze ak lépp ñuy napp fee jën kii napp fii jën génn lakk di lekk kee def yaramu neen kii jonkan kii ji nangam ndax tax na nga ni jën wi bon na <laughs> way inna alxasanaat yudhibna sayiat dalika dikra li dakirin daa mel ni waxtu yu jot na incha allah daa mel ni question yi il faut duñ ko denc ba dar sa biir ñëw السلام عليكم ورحمة الله وبركاته